bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziare ñu ko baaxoo def buñ liggéeyee ba liggéey bi ak si fii buñ saa liggéey ba liggéey bi ak si fii dañuy lim daayira yi nga xam ñoo fi teew ci bis bi fii ci Daaru Saam lim biit li ko sabab moo di dolli kóoluteef rek ndax daayira boo gis membre yu bari ñoo koy composé te bu ñëwee pour def seen versement ak jébbale fii ñaar ngay gis mbaa ñett kon loolu mooy kóoluteef loolu nag mën leen bëgg a feddali wan leen leen ñi ngeen yebalan seen liggéey agsi na loolu ma tax ñuy lim daayira yi nii di ko dugal ba international ngir ñu xam ni seen liggéey bi agsi na tey jii fi daru Saam téeméeri daayira ak fukk teew na fi 110 daayira bi ci njëkk moo di sëti sëriñ Massamba Diop yi nga xam ñoo ne fii ci Daaru Sàmm ñoom seen liggéey joxoon nañ ko depuis ba ca ngoon muy lim bu takku muy sëti sëriñ Massamba Diop yi nga xam ñoo nekk Daaru Sàmm kon ñu ngi leen di sant leen gërëm te sëriñ Bassirou Diop imaam jiite ko ak sëriñ Moustapha Diop moom sëriñ Abdou Samad daayira boobu moo fi jëkk ci liggéey bi daayira ba ci topp mooy daayira sopp sëriñ Massamba Diop bu Daaru Diop seen président di sëriñ Cheikh lay daayira ba ci topp di Touba añam ca Fouta président sëriñ Cheikhouna lay daayira Daaru Fanay président Diembay daayira Touba Brésil président Diassé Mbeng daayira Touba Argentine président sëriñ Abdou Khadir Lay Touba Afrique du Sud président Cheikh Lay Touba Espagne président sëriñ Omar Niang Touba France El Hadji Moussa Lay Touba Italie El Hadji Fallou Lay Touba Côte d'Ivoire Abidjan sëriñ Modou Gueye Mourid Sadikh Daïra Touba Gabon président sëriñ Bassirou Gueye Touba Sam sëriñ Seex Ndawalum Touba Kaolack président sëriñ Moustapha Samb xaadimul xadim li ma Masamba Diop Samb Touba Samb président sëriñ Mbacke sëriñ xaadim Jaxate Seex Masamba Diop Samb dayra Seex Masamba Diop Samb bu Kankan président sëriñ Seex Mbacke Tall dayru Fanay Dieng Mbaye Touba Ndigal Ndiaye Serigne Modou Ndiaye Nexij Paleen Ndiaga Sarr Gëti Ñing Binta Gueye Touba Gadd Touba Gadd Dior Dame Diagne Touba Ndiir Dieng Serigne Mbacke Dieng Touba Taw Maam Astu Diop Touba Ndob Lëy Soxna Fati Gueye Touba Xaasin Toola Seck Touba Badji Mbaylum Tàggaar Mbuubeen Ñaasalum ak Fatim Mbuub Maada Sey Njóoba Géy ak Cey Jóob Touba Ndindi Peteñ président Soxna Ndaama Ndiaye Xaytako Sëriñ Say Sëriñ Say Jóob Soxna Say Jóob baxdaat lay sëriñ baara lay mbagi xuma soxna mbay xuma mbaaxeen ali ndimb faal ngaan jóob ak bayti jóob tuubaa nduufaan mbàkke jaañ ak mbay lay tuubaa ziguinchor moustapha lay ramatu jóob cheikh jóob kujaan mbayeen faati jóob ak fa ak jóob ndigal faal matu lum makka saar góora ak soora jóob tubaa cey cey awasi la tubaa madiana sëriñ seex lay siin ma kumba nguuda lay tubaa layen laay lay bayti kan seex jaañ ñaagaan aysa njaay caaroy gaar Modou Lay Touba jaane Diané Gueye Taïf Mbacké Thierno Diop Boussoura Lay Khady Sall Fanay Lay Soxna Mati Ndiaye Ngayeen Mbakari Njaga Gueye ak Awa sàll Cekkeen Seck Cheikh Badar Diop Touba Ndar Saint-Louis Fatou Mbeng boroom këll bi kër jawli murit jóob ak layti jóob tuubaa caaween ñaay géey sancub jokkul Ousseynou Diop gàdd mbarama ndey mbeng siinuk peex ndey saw Touba ngiraneen maas sëy day da njaw njaw xaadim jaw ak baati kan jawaar lum farma jóob njaay coro omar gueye touba marché ngelaw cheikh sele ley touba ndar ba tey saint louis aji binta saw xay gu njëng awa jeng njaay bumi umi jóob Parcelles Assainies dakar unité 26 soode Touba jéemul xaddi lëy Thiès Madina Fall Badaloum Touba Mbengeen Adja Ndey Ndey Njaay ak soxna xari lum njóobeen ndimb taqaa jóob ak ngañgeey Touba wërsëg Seynabu lum Touba lëndëmaan cekka mbeng Touba nexi jama jóob El lëy Touba bëdd forage soxna Anta Ñang Touba rijaalulaahi waa kër sëñ Souleymane Diop maraîcher magal bi ak koy yi Touba Dak Ar Ibrahima Adoon Touba Ndaam Modou Thiam Touba Jéegu Diop Barale Touba France sëñ Moussa Li Touba Dibalkan Daru Kan soxna Kan Daru Fan Daru Njaay Sélé Seck Salasek Touba Koulibaly Dame Ndiaye Dawar Dagana Fane Seck Touba Beppo Magu Seck Kandara Mbengue Mbendou Xamban Sall Modou Sylla Touba Gare Seck Binta Seck Touba Kaolack Bakary Laye Bara Diop Soxna Astou Mbaye Daara Touba Touba Guédiawaye Sëriñ Góor gi Isra Mar Ahmed Mar Touba Djibi Pekes Yero Fall ak Ousmane Asma Fall Touba Niass Cissé Modou Bayane Touba Djibi Wallo Soxna Mbène Diaw ak Mbaye Cissé Ndioum Ndiène Fouta Touba Djibi Ndiène Sëñ Modou Gueye ak Soxna Fatou Ndiène Touba Kédomer Lami Sadio Touba Ndioum Fouta Mame Goor léegi Abdou Seck Cheikh Kar Yamar Dia ak côté bi Touba Fatal gi sama Aliou Sy kon léegi foofu la ñu ngi sant yàlla bu baax ñu gërëm di nga xam ne delloo ñëpp jàmm yàlla yàlla yëpp ci baax ndax bu dee wax wax ci ba mel ni ñoom ak di leen seen maam bàyyee ci loolu ñu ngi ko doon baax ci kon tey ñoom it ñoo leen di sant di leen gërëm di ñaanal itam Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoul Khadim yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla yàlla yow de suñu waa def ngërëmal islam ak ngërëmal Serigne Touba ñu am na ngërëmal Serigne Moustapha Diop ba noppi wax kilifa yëpp gërëm nañu njaboot yëpp gërëm nañu kon Sëriñ Moustapha yàlla na nga yàlla ñëw ci Tuubaa yàggal te wéral la loolu bi daa yëtoon jamono Sëriñ Massamba Diop bi kon loolu bi daa kilifa yu tedd muy Sëriñ May Amar moom Sëriñ Aliou

kilifa yi lislaam yi fi teew yépp ak kilifa yi diine yi di jiital ci nuyoo bi nag président de la république ak premier ministre ak mboolem membre gouvernement Sénégal bépp di nuyu gouverneur de la région Thiès ak préfet département Tivaouane di nuyu sous-préfet Niakhène ak monsieur le Ngouda siis ak mboolem chef de service yi ñu àndal yépp di sant bu baax a baax mboolem docteur yi nga xam ne ñëw nañ fi ànd ak ñun liggéey bi ci suba ba léegi noppalu ak mboolem autorité bi nga xam ne ñëw nañ fi nga xam ni ñoo yombal dikku nit ñi ci biir dëkk bi ndax ñoo tax oto yi mënuñu oto yu mag yi jàll suñ ci dëkk bi ba oto yu ndaw yi mën a agsi ci biir dëkk bi ak nit ñi loolu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di sant gendarmerie Ngaye Mékhé moom it def na fi effort bu am solo ndax ñi nga xam ne dañ fi doon jéem a luubal jàpp na leen ba yóbbu leen Ngaye Mékhé kon loolu ñu ngi leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm di mbool ki ki nga xam ne moo fi teewal président de la république noo ngi koy nuyu di ko xamal ni la nga xam ne si moom la sëriñ bi bëggoon ci dëkk bi muy juróomi kilomètres yi nga xam ni moo bàyyi ko Tuube ñëw Daaru Saam te Alaaji Babacar Ndiaye nga ko rang-rang ko loolu ñu ngi koy ñaan di ko ko fàttali waxan nañ ko waxati ko na koy fàttali mu dimbili nu ci ñuulal ko sunu case de santé bee tam ñi ngi ko koy fàttali dëgg la def nañ effort bu rëy ndax tabax nañ si poste santé boo xam ni demoon na ci ñaar fukki million équipement bi ñu ci def nekk na fukki million waaye nag ma nga ñu ub kenn amul garab amul benn docteur bu ca nekk kon ñi ngi koy ñi ngi ñi ngi ñaan président de la république mu dimbalu ci docteur bu bu ca nekk ak collecteur ko ba mu wër ak euh, ak ak logement yi nga xam ne ci la docteur yi nekk loolu monsieur le maire ñi ngi la koy jàmbaar nga loolu wax dëgg yàlla effort bu ne dox nga ko ci kon ñu ngi lay ciy sant di la ci gërëm waaye nag nu lay ñaan nga dolli koo fàttali président de la république mu dimbali nu ci mboolem ndox mettam waxan nañ président de la république bind nañ sañu bind na ko leetar bindati ko leetar waaye boobaak léegi xëy na mu ngi ci effort waaye nag ak gul nuy ñaan mu jàppale nu ci bu baax a baax ndax dëkk bi ci seen bopp sëñ jiite ko forage bi ñun ñooy jéem a defaral suñu bopp sa tëddoo ku fi ñëw gis nga gis nga fi mu toll liggéey nañ ko ba nga xam ne mbànd mi ci kaw rek moo ci des kon kuy kuy góor góorgóorlu nag defe naa ni dana yomb jàppale ndax Darou Salaam moom ku fi ñëw xam ne yomb nañoo jàppale ndax lépp lu ñëw xaaruñu ci kenn ñi ngi góorlu rek fas yéene ku tàllal leen loxo ku ñëw itam loo ci def rek noo xam ne dimbali nga nu di ñaan itam maanaam monsieur le maire lamp yi dëkk bi dafa yokk nu bëgg buum yi gën a yaatu ci mbedd yi ba fépp foo xam si dëkkuwaay yi egg na fa courant ba mën fa egg ñu mën cee jariñu kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu وقلنا وقولنا وقم لنا ولا jaajëf bi rasulillahi amul leneen lu ko yitteel lu dul gërëm te sax ci tuur kookaani sëriñ ma samba Diop kookaani sëriñ ma samba Diop ku bëgg sëriñ ma samba Diop waa beneen bi jox ma samba Diop ma sa Diop daaru saxal bi tuur te jënd yëpp fàtte lépp ngay sant sax ma samba Diop kookaani sëriñ ma samba Diop ma sa Diop daaru saxal bi tuur te jënd yëpp fàtte lépp ngay sant sax ma samba Diop ku dee kon ku mën kenn ngeen fa demee te fekk bàyyi Cheikh Abdoulaye Diop Cheikh Massamba Diop Sam Cheikh seex ma Sam Cheikh Massamba Diop ma Cheikh Massamba Diop Sam ma Massamba Diop Sam Cheikh Massamba Diop Sam Cheikh Massamba Diop Sam sigil na xeet wi sant Diop askan wu ñëpp ànd laa ba tax li naw ku sant Diop na yàlla sun borom ci waawi Ahmadul ma te xam na ruy yàllaay borom jaaraama Sëriñ askanu Cheikh Massamba Diop askanu Cheikh Massamba Diop góor ak jigéen nag ñi sant Diop ñoo sell ñoo sellal te sell jëf bi laa ak kàdduy ñaan ak kàdduy dénkaane kàdduy cant yi mooy noo sant sëñ Abdourahim Diop mi nga xamante ne tey mooy kilifa ci kër sëñ Massamba Diop ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér di sant mbooleem njabootug sëñ Massamba Diop ndax lii ñoo ci jiitu ñëpp muy sët yi ak doom yi kon bu tolee nii war na noo sant njabootug sëñ Massamba Diop gépp di santaat taalibe yi yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ndax lii lépp bu amee yàlla ak taalibe tax waaye bu leen geesu bu leen ni doy na ndax kenn ku ne xam ne sëñ Massamba Diop moo jëkk a liggéeyal Serigne Touba kon nag nun taalibe yi buñ dee liggéey warunoo attandiku warunoo daj ñuy ñaan nag yéen ñëpp da waxoon ne sëñ Moustapha bëgg nanu mu wax te temps bi gàtt na lool te moom du faat waxtu nu bëgg képp koy wax mu limité kàddu yi ndax sëñ Moustapha wax kàddu yii ma wax nag maa ngi ko jële ci sëñ Abdourahim Diop kon loolu la ci amoon lu ñu doon wax ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi seenu sëñ Moustapha léegi mu agsi jërë jëf maire commune bu Ngandiouf muy Ngouda Ciss di dinañ jottali nuyoo Ibrahima Sarr sous-préfet arrondissement bu Niakhène dinañ jottali nuyoo Makan Mbeng muy préfet département bu di dinañ jottali nuyoo ziar Amadou Sy gouverneur région bu Thiès di leen jottali nuyoo ziar ak sant al haj Abdoulaye Daouda Diallo muy ministre de l'intérieur et de la sécurité publique di leen jottali nuyoo el haj le président son excellence Macky Sall di leen sant di leen gërëm ci liggéey bu am solo boo xam ne euh, njabootu Massamba Diop mu ngi koy def ci ci ndiine ci yar ak ci liggéey président yabal ma fi pour ma indil ko santom ngërëmam te tamit ah di sakku ñaan ñaan pour que jàmm ji jàmm ji am ci réew mi ñaanal président de la république pour liggéey bu am solo boo xam ne mu ngi koy def ci kilifa ci kër kilifa diine yi ñaan ñaanal ko liggéey boo xam ne ak fu mu bëgg yóbbu réew mi yàlla na ko yàlla may doole ak kattan boo xam ne mun na ko fa yóbbu loolu moo tax président yebal ma ma àndi kàdduwam teg ko si loxo xalif bi mu jottale ko ci ci njabootu Serigne Massamba Diop Samb ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jottali nuyoo président de la république jaarale ko ci ministre de l' intérieur ak premier ministre bi ci ak gouverneur bi ak préfet département bu Tivaouane bi ak sous préfet arrondissement bu Niakhène ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. dox ci suufas Daaru Saam lu neex sëñ Bamba lay doon te damaa bëgg lu neex sëriñ bi bàyyil ma dox Mbàkke moo tax nga dox ma topp ca ginnaaw waaye bi ma toppee ca ginnaaw Mbàkke niw ki dox mooy sëriñ Abdul Xaadir sëñ bi yaa ngi noo wax ji jëlu yàggal bor bi ngay fay sëriñ Tuba am pay fay sëñ ki toj jambal toj ciin toj jawaari mbéggéen kenn ba mu njëkkee France sëñ bi ñu ni bu subaa bu ñu xëyee na ñëpp dem tool mu ne kon boole nañ sëñ bamba naa bay saw sas bay aw sasam na ñëpp dem tool tegee ma dégguma fu ñu tegee sëriñ bi baal ma bay saw sas xaadim mu mu sabaa bay saw sas bay sasu sëñ bamba bay aw sasam jëkk ña doon bay sëñ Masamba Jóob saam looloo tax bi nga jaari ci pinc mi dox ma topp sa ginnaaw liw naa lool ndax sa bay sëriñ bi sëriñ Cheikh bi Diop mi ngi nii ak njaboot sëñ Abdourahim yëpp Daaru Saam yëpp a ngi toog suuf bàyyi laak photo yi bi lan sëriñ Tuubaa ak Seex sama bu doon ak sëñ Bamba sa maam balaa kenn julli ñaan permis bi ñu tey li julli rab rab ci bureau gouverneur sëñ Bamba rek sa maam a julli mu woote appi dongo sutub sooroor gën juma yetti mag daje ci moom màggal gu mag gi jumaa ju mag gi sëriñ bu mag bi Cheikh Moustapha Moustapha al Karim ajatu Ndella Wade ak bokka bi ak borom këram bi Ndella ne sëñ Masamba Diop saam la am moom lay waaje moom lay wàllee ne amul lu moom ne ku la booleeg sëñ Bamba mënatoo koo fay Ndella ne maamam moo ko booleeg sëñ Touba ne moo tax moom mooy Baye Fallou Darou Sam Ndella Wade mooy Baye Fallou Darou Sam ma nga ne dend ak nijaayam alaaji Mansour Mbay ajatu maamanta lay soxna Awa Gajaga ak soxna Njaaye Mbàkkim sëñ Fallu ñi ngi fi ak bokkam yépp ñi mu bokkal ndey bokk ak ñoom bàyyi ak borom këram bu baax bii di Mbay Njaay kenn ndee la ne jàpp na la te du la bàyyi sëñ Masamba Jóob saam rek la sër bi nag sañ maye meew waaye jàpp ci jur gi maye ki moom jur gi rekk ko sañ diggante Conakry ak Ndakaaru boo julee ci gaal gi tooñnu boo juliwul tooñal sa borom sa maam sànni dërëm ci ndox mi cëppeelu ku dul sañ Bamba boo julee ci piscine balaa ngoon nga dee julli léegi dee léegi piscine piscine boo julli dee nee na du wilaaya du baatin ah Mbàkke julli ci géej gi boo sëggee takk suuf boo sëggee takk suuf mu ne du wilaaya du baatin bato bii ma dugg teg lañ ci 30 tonnes te diigul matuma fanweeri ci la yilimaan yilimaan yi xaadim borom nit ñi mamara sali sin ba Cheikh Moustapha mi ñu la fayee moo tiital foo sa Touba ku la tira armée yi fan la suy jumaa ji babax ñetti ko yi jële sëñ Bamba njëriñ indi ko ci biir mbokk ndax ma la minu tiwilaayi ko doy nga xaadim borom nit ñi yaa ngi noo ngi fii nga toog yaa fi Sëriñ Touba yaa nga toogal Cheikh Sidil Maxtaar yow la yebal Ndakaaru yaay jiite jàmm ñi Daaru Saam na taalibe yi ami xéewal Daaru Saam na dekki na tëli bi yaa indi lamp yi lu amagul daaru saam daa ñëwagul waaye dana ñëw yaay daaru daaru yow te yow yaay sëñ bamba ni jaay bisimilah. yaakaar naa ni li sama jarbaat Ablaye Mbaye Pekh wax rekk doy na xanaa bañ rekk ñu ne ma Mansour de sànniwul kàddu moo tax ma jël kàddu fii nag mooy sama cosaan sama baay fii la juddoo ay rakkam fii la nu juddoo mu am ñëpp maam sayer mi ko jur jur leen ñoom ñëpp kuy seen sëriñ ka xaadimu rasul mi ko woon bu may dem màkk yow laay àndal di kan di sëñ ma sàmba jox kon fii tey ñëpp bég nañu kontaan nañu kuy péete daaru saam nu mooy sëñ Moustapha nu nu kuy sëñ Moustapha nu nu mooy doomu ilimaanu ilimaan yi kuy sëñ Moustapha moom la bàyyam soppoon bëgg ba tudde ko nga xam ni moo njëkk nekk xalifa Xaadimu Rasuul di Sëñ Moustapha Mbacké kuy seet ku ragal yàlla nekk ci li yàlla bëgg ak maanaam Xaadimu Rasuul topp tànkam teg ko fa ko bàyyam tegoon waaye bu leen sori waaye mu ngi nii mooy Sëñ Moustapha Mbacké dégg li Ablaye Baye Peex wax rek ni oto yi bare oto yëpp di oto ku fi ñëw taalibeem ñëpp mun a am laay may peex oto bi déedéet fii sëñ Massamba Diop daan jaar ca sama maam Xaadimu Rasuul sampoon ko ko foofu laay dox sama tànk yi ngir sama tànk yi am barke ñun tam Mbàkke fii du ñuy dox bu ñuy dem ndax suñu tànk yi am barke dina ñaanal yàlla may la gudd fan mbàkke balaa ay di la ñaaral yàlla may la wér daaru saam day kër xaadimu sul yëpp seeni xarit lanu seeni soppe lanu seeni sëriñ lanu waaye seen péete daaru saam kenn rek la mooy yow sëñ Moustapha ndox mi yow la électricité bi yow la ndaje bii am tey ba Sénégal yëpp ndaje fi ak pour Sénégal du kenn ku dul yow Mbacke Balaye Che pour bañ la ñu daloon daaw daan lu moo tax damay gàttal di nuyu nag sama sëriñ si toog sëriñ Bassir ak ay rakkam ay magam ak xalifa bi ak di ko ziar ndax man ñoom rek la am di nuyu sama goro bee jaralu man di Babacar Ndiaye ak état major am yëpp di jëkku ajaratu dee la waat di nuyu sama jarabaat bii sama xarit bii sama soppe bii ànd ak i mbokkam yépp nit bu nee wu baax na du ñuy wax ndax bokk yaa ko wax xam ne ne am lu du daaw saan moom ajaratu ndee la waat moo tax kuy mbokkal ku mbokkal lay wala ku mbokkal baay wala kuy askanam wala ñu ko gën a jege yépp ci wóllëre ak xarit mu leen benn bés rek la am muy bésu sëñ Masamba Diop sëñ Moustapha kenn desul de ñëpp ñëw nañu Mbàkke di la ziar comme que timis gi bëgg jot ci yow waxtu dafa lay dafa ak rajo xaalis xam naa ci dara maa gëm lay bay peer fu la wallahi wax naa ko ko léegi di ko boo léegee yàlla yéex waaye wallahi Cheikh Abdou Khadir du la jëpp sama Xaadimu Rasuul du la jëpp kii toog ku ma ko ragal yàlla fab tànkam teg ko fa baabu Cheikh Abdou Khadre tegoon di roy maamam Xaadimu Rasuul waaye mu bu ko seet fenn mu ngi nii toog muy sëñ Moustapha Mbàkke fii laa di la wax ni booy ñaan nga boole ci sa taalibe bii sa doom ji sa jarbaat bi sa xarit bi wóolu la ngir yàlla ak maamam Masamba Diop te Masamba Diop nu mu mel kenn melanu ku du xaadim rasul bu ko fàtte ci ñaan bi ajara tuddee la waar mbàkki bale fii laa yem ndax la nu daloon daaw waaye moom nu nuy bañ mu dal lu ren nu na ni bërët ñëpp la nuy bañ mu dal lu ren mu dal lu ren mbàkki yàlla gudd sa fan di nuy sama doom jooju xoola rek xam ngeen ni ànd ak yàlla rek moo kii toog délégué la du président de la république Macky Sall mu ngi tudd Abdoulaye Fofana Abdou Karim nekk na ministre de l' intérieur de l' éducation de la santé nekk na ko du temps du président Senghor ana lu mu def mu ngi nii toog suuf lii kenn mënu ko ko Xaadimu Rasuul allahumma salli ala sayyidina Muhammad waaye nag ndigal ndigal ko eefal ndax sëñ bi mënu jox ndigal ci turu Sëriñ Abdou Rahim sëñ bi na mu ngi sant ñëpp képp koo xam ne ñëw na fi wala sax nga amal yéene ñëw te amul gàllankoor sëñ sant la gën jaar fi cant mun képp koo xam jóg nga wala sax nga amal yéene ñëw waaye am ay xaxaat ay gàllankoor sëñ bi sant la gën ngi sant njabootu boppam gii astafirullah lépp yi sant gi mooy ñu sant sëriñ Sidi Muxtaar ayadullah wa nasra yàlla yàlla guddal fanam te wéral li ciram te am na ndimbal suñu borom ni ngi ciy teg ay doom ndax rek la fi dese di sow fi mag ay doom rek fi nekk mooy doom yëpp rek tàmbalee ci ki ci mag ba ci ki ci gën ndaw ba ci sët yi ñëpp sant leen gën ngaa dellu cant mi ngi sant taalib yi ci réew mi ak ñi ci bitim réew mi ngi sant bu baax baax benn cant nee na ajam yàlla wàdd ndax ci dëgg la ci sët yi la mi ngi def li sët yi def defaale lu ko kaw jot ni taxawee ci Daaru Salaam dafa mel ni da ko sof waaye sosu ko ndax yaayam noonu la fi taxawoon ci te ci teewaayu sëñ Bassirou Diop fekk naa ba tàyyi gàmmu si bu dikkee gàmmu gi lu ne la lu fi def lu bare bare bare bare bare def te booba dëkk bi toolu guddi sax waaye lu bari la fi def loo xam ne mooy mooy saytu gàmm gépp loolu nag agenda la da yokk waaye suusu ko fekk na fekk na mu nekk kon nag yàlla ko yàlla dimbali moo tam te taxaw ko te dëgëral ko parce que Seexul Xaadim ñu ngi sant bu baax a baax ñoo ngi sant bu baax baax waaye daayira bi mu baaraka te ci njiit bi ñu tegal ma ci kanam ñu ngi sant euh, sëriñ Bassirou ci jàppale gi ñu jàppale ndax ba fa nekkee ba léegi daayira bi taxaw ba bis bi ñëwee da ciy jëf-jëfandiku yoo xam ne sax ju ràññiku la dëgg la sax bëggut ko ko wax xëy na waaye nag suñu borom ci boppam mooy digle bu ñu la defalee nga sax nga xam ne nga waxoon ne doon soxla soxla wa amaa bi ñu xamante ne bii kon nag bu ñu la defee lu baax dama war nga ko wax te dafa mel ni cant baax na ndax suñu borom cant jël ñu ko dara waaye teewul ma ni ba ma santee ma dolli la kon sant baax na kon ku defal lu baax nga ku la defal lu baax war nga ko ni ko defal nga ma lu baax moo tax daayira bi di delloo njukkal sëñ Bassirou Diop ak aja neel waa dëkk ndax ñoom ñëpp ka ku ne dañoo defal defal bu rëy rëy rëy loo xam sax duñ tudd ci jëf yi def de waaye defal nañ def def def boo xam ni euh, daanaka lu jàngati bis bi ci ñoom la war mu ne seen ñàkk sant donte bëgguñu sax ku leen sant waaye du tee ñu sant leen ndax noonu ma ko waxee rek suñu borom ci boppam boo xam ne bu ñu la defee lu baax nag nett jërë ngeen jëf yàlla na yàlla defal taw xaw si jot te suñu borom mi nga xam ne ku mu dimbali nga xam ne dimbali yàlla na dimbali boppam suñu borom féex seenu fan gudd fan te ngeen fekk gudd ñëpp jërë ngeen jëf jiitukum xayran wa kubitukum dayra asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi fi teew yëpp yéen mbokki lislaam yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen nuyu turu alxalifatul am li taifatil muridiya muy sëñ Sidi Muxtaar mi ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant bu baax te di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax ndax nee na fii wóor na ko ne li sëñ Tuubaa defan defoon te def ko ci sëñ Masamba Jóob ba tey day yokk waaye wàññikut loolu nag war ngeen di sant yàlla kon bu baax a baax ndax loolu mu ko seeree ci li ñu fi tàmbalee ci suñu Modou Moustapha ba ci moom mii ku fi ñëw ku ne loolu la leen seereel mooy ne ci ne raay bi rek te wàccoo ko ndax suñ Modou Moustapha mi fi njëkk a teew bi njëkkee sa sëñ Mat Diop ma sàmba juróom junni bi ko sëñ Mat Diop indee booba juróomi junni kenn xamul nu mu toll ndax booba tonab ciment suñu soin bu laa ko déggee mu ne juróomi booba juróom fukki junni juróom fukki dërëm lay jar benn tonab juróom fukki dërëm <laughs> boo lañ sosoon suñ mut jëb juróom bi mu ko indee bi bi mu suñ mut jëb dajalee ba am ñeenti junneeg nàngam boole ci téeméeri bëri guy pepp suñu mut ruusaani ko ah lii da xanaa bu ci duggee mu farmat xam nga moo lay xamal boobu bari waayu <laughs> mu ne mu ne ko ah lii kat jeneen addi yi ju ci dolli ko la waaye danaa yónnee li mot li junni juróomi ji nii kon noonu la noon la seen digganteeg sëñ Tuubaa deme bu ko defee nag ba ba ba cant ga noppee sëñ Mourou Moussa ne ah man de li ma ci xam mooy mët jëb de bu toogoon fii ma toog dana fi def li ma fiy def bu ma toogoon fee mu toog du ma fa def lu ëpp la mu fay def looloo nag mel na ne moo ne ci kër gi ba tey kon war ngeen di sant yàlla bu baax a baax a baax taalibe yi yëpp war nañoo sant yàlla yéen ñi yéen ñi ne ci seen kanam it ngeen war a sant yàlla te xam ne da la sëñ Abdou Khadir mbakke waxoon ni kër yëpp sëñ Touba def na fa xaas waaye mu sàmba Diop sëñ sëñ Touba defal na ko tawféex taw tawféex jooju ku ne gis teg na ci seen seen bët te tawféex nag daa jafe ba alxuraan. li muy bari bari benn yoon la ci am muy wa maa tawfiqi illa yi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib jafe gum jafee tax yàlla li mu ko tudd ci alxuraan bëriwut <laughs> kon nag war ngeen di sant yàlla bu baax loola nag la ko may mooy ni mu defoon ni sëñ Masamba jot defoon sëñ Tuubaa ca waxtu wa nga xam ne kenn de tàmbali gu koo def sëñ bi waaw loolee nag mu fajaloon sëñ bi moo waral sëñ bi mooy faye ko defal ko tawfiq ndax sëñ Tuubaa moom guraam du sànkar noonu ko Musaa Ka waxee loo ko loo ko lebal rek bu la fayee nga xeeb nga xeeb la nga doon def léegi nag loolu moo ko may di si sëñ Tuubaa ku ne xam na ne lislaam doo ko ñor ku ne xam na ne yonent bi doo ko ñor sallallahu alayhi waaye ba mu demee ba bëgg a dem aji Makka sëñ Masamba Jóob képp la woon ne ko demal ci réew ma li ñu war a waaje lépp yow laa ko sose te nga ñëw yow laa bëgg a àndal mu ñëw nga xam ne fii la ñëw suusal yi mu war boobu mag ñi bu ñuy aji suusal la ñuy wut suusal sànqal eh, di defar ay seel nga xam ne dañoo naroon topp àll bi rek di dox di dugg réew yi ba àgg mag ba mu ñi ba mu delsee nag ba dajale yépp ba indi ko nag la ko sëñ bi ne ko am na loolu fi wut lu jóge ci suñu borom ba tax na la ma doon bëgg te yéene ko sama borom dana ma ko defal fii ci dana ma ko defal te te du tax may may may jóg di àgg foofu waaw kon nag loolu ak cant la tawféex la eh, eh, nu sëñ Tuubaa demee woon la ak Seex Masamba Jóob mii nga xam ne moo sañ ci dëkk bii kon nag yéen ñi di njabootam gépp war ngeen sant yàlla bu baax a baax a baax te xam ne tawféex jooju sëñ Abdou Xaadir waxoon làmb na leen yéen ndax eh, yàlla moom ku ne xam na ne li waxoon ne inna laa laa yugayiru maa bi qawmin xataa yugayiru maa bi anfusihim yéen tënku ngeen ci loolu mooy yàlla du soppi lam doon def féet ña ñam ko doon defal soppikuwuñ te yéen nag yàlla def na soppiku kon nag sëñ bi doon defoon ci sëñ Moussa Mbodj day yokk rek waaye du wàññi ndax euh, sëñ Sëti Jaxate wax waxoon na ko yeete ci ne nit ñi dañuy wax ne li siñ bi yoroon dafa am soppiku ci ñoom ba tax ne eh, ñu jàpp ne kenn mënatu koo am waaye dañoo xam ba tey de damaa wóor ne ku wute nañ doon wute ba tey sëñ bi defal la lam daa defal gaay ku wute na gaay doon defee ba tey mu defal la te yéen nag ba tey ci yéen a wute na gaay doon day wute kon nag alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi leen di sant bu baax di sant ci bis bii ndax sëñ bi ci boppam moo waxoon ne eh, ñuy siyaar ji sëñ Massamba Diop kon yaatal gañ ko yaatal ba ba ñëpp bokk bokk ci moo ko joxoon ndigal it bi ñuy dugg dëkk bi rek laa koy wax ne ko laa koy nettali kare ñu ñu ne leen sëñ Tuubaa kenn xamul lu ñu doon ndax dëkk bii ngay wax ngay sàmbe fa la njëkk gisee ak sëñ Masamba Diop sëñ Masamba Diop di jàng ci góor gu ñëw sëñ Mor Sarr di jàng risaala bi sëñ bi bi sëñ bi ñëwee ne ko tey ma tëralal la bi mu ko tëralalee risaala bi leer lool maanaama rek dugg sëñ Masamba Jóob mu ne kii danaa jóg toppi ko daal dox ak tànkam ba fekk ko pataar <laughs> neen daal daan lu ko ci duggee loo xam ne wax ji leer ba mu wax ne wuti naag ni mu doon jànge lool mu ne kii mu ko ba mu ñëwee sëñ bi ne ko ah man biraguma ci daara Mamour Anta Sali laa ne mu ne ko ah man di ci yow laay topp du jàll ci kenn <laughs> foofu la tàmbali ànd ak sëñ bi sëñ bi di ko jàngal kon nag alhamdulilahi ma alamin na ngeen xam ne daal ah, ah, sooyu leen waaw ah. ah, waaw ngir nag bañ a sooy bañ a so boo ci sooyut war ngaa sant yàlla waaw ñii leen di sant bu baax di di sant mbooleem njaboot gi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ak mboolem ñi sët ñi nga xam ne ñoo toog fii ñëpp bay wuñ kenn tàmbalee ko sëñ Sonia bu Jóob ñii sëñ Basiiru Jóob ak kilifa yi toog ñeem ñëpp ñu ngi leen di nuyu sëñ Sonia bi mi doon wax ci turu kàddu gi ñu ngi koy sant bu baax di sant mu mu santal ñu sëñ Abdourahim Jóob jottali ko mboolem uh, suñuy cant uh, ak ak suñu ngërëm ndax ñun waa dëkk bi ñun ñoo leen ameelu cant waaye ñoom ak cant wóoru leen ci man man maa leen ameelu cant kon maa ngi ñaan rek diggante bi yàgg uh, yaakaar yi ak kóllëre gi nga xam ne ci sëñ Tuubaa la tàmbalee te ne ci ñoom di dox ci ñoom ba ñoom ku bokk ci sëñ Tuubaa rek wóor na leen ne ciral nañ la mm-hmm. waaw kon ku ne yëgal nga ko sa bopp waaw loolu Euh, ñi ñi ngi ñaan loolu yàlla ak sëñ Tuubaa gën leen a jàppale rek gën leen a dimbale euh, te xam ne loolu la sëñ Abdoulaye waxoon euh, ci jamono yi sëñ Bass Diop ne lii lii ngeen am du du seenu pàgguteef pàgguteef sëñ Massamba Diop mm. waaw waaw loolu loolu am na bopp da leen a téye ñoom ñëpp waaye loolu la wax mooy leen delloo doon waaw waaw mi ngoog kon nag kon nag yéen ñëpp ngeen sant bu baax a baax a baax a baax ndeeleet ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax ne ni muy góorgóorlu ci dëkku maam bi ñu ngi rafet la bu baax mm, mm. te di ko ñaanal euh, ci euh, maamam jàppale ko ci bu baax mm. ba lépp gën a jëm karam ñu ngi sant nag mboolem taalibe yi di ñaan lu ci waaye wut si woon ci siyaar bi rek yàlla la ko yàlla defal ci daraje sëñ Tuubaa ak daraje sëñ Masamba Jóob li ko doon liggéeyal wa kullu haamin bi xayrin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi bi ñaan dafa am benn bis sëriñ Abdul Xaadir ñëw ci sëñ Muntaxa njéeréer yi naaw ba kenn mënut a togg añ sëñ Muntaxa ñëw ni ko njéeréer yi de moo nu jaaxal ba kenn mënut a togg mun ko nañ ci jàpp benn jox ma ñu jàpp benn njéeréer jox sëñ bi sëñ bi ni nag ci njéerél bi jëmale bopp ba penku ni ko xërr sànni tifli ko njéeréer yépp naaw topp penku bi Mbàkke sër bi sañ naa maye maye waaye jàpp ci jur gi maye ki moom jur gi rek ku sañ noo ngi tàllal sunu loxo nun ñépp waaye maa ngi lay ñaanu maa ngi lay sàkku nga ñaanal ma Mansour Mbaye mu gudd fan lool sab xarit dafa nekk man di sama nijaay te wettili ma du ma bàyyi ma def erreur bëgg naa mu gudd fan ñaanal ko bu baax na ñëpp tàllal amin amin amin Mbakke amin amin amin da ngeen xam ne sëñ Abdou Khadre lay ñaan Xaadimu Rasuul lay ñaan. dëgg la de dëgg la de. amiin. allahumma amiin. amiin. allahumma amiin. allahumma amiin. amiin.